moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha nag santoon ma ne naa jot li mboolem yéen ñi nga xam ne yéenee chef de village yi ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi ndigal ndigal yi mu leen di bëgg a sant ne dafa bëgg ñëpp maase ci xam ne fii mu toog di jataayu Serigne Touba yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo ko tànn teg ko fi te suñu borom wax ci alxuraan ne allahu alamu xaytu yajcalu risalaatihi muy bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa itam ndax képp ku fi toog rek Sëriñ Tuubaa seet na seet na ko tànn ko ba mate ko mu teg ko fi nee na li mu fas yéene nag di ko xamal bokk taalibi yëpp ak bokk jullit yépp mooy ne dëkk bi Sëriñ Tuubaa da ko ñaan suñu borom ba suñu borom may ko ko muy dëkk boo xam ne yàlla def na ci histoire ci taarix kenn mës sa fàttaliku fu ko nit moome kon muy lu ko suñu boroom dencaloon ba di taw fee xam ba yàlla def suñu boroom jox ko ko nee na Serigne Touba ñaan fi mboolem li bëgg ci dëkk bi danaa ci dellu siwaat lépp suñu borom bay ko ko nee na ba sëriñ Touba ñibbisi Touba bi sëriñ bi ñibbisee nag mboolem njëkk fi masa wutu ñëpp tàmbalee ci ci ko fi jëkk wutu di as Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci cheikh Mouhamadul Fadil jaar ci cheikh Abdoul Ahad jaar ci cheikh Abdoul Khadir jaar ci cheikh Salihu Mbakke jaar ci cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbakke ba jaar ci cheikh Sidi Moukhtar Mbakke ba yàlla def moom mii lépp ndénkaan di nekk ci loxoom nee na nag fas na yéene li ko ci war mooy na ko ñu jëkk ñi daa defee mooy wattu ak sàmm. lépp lo xamne ne jëm na ci dëkk bi mu fassiyene ko watu sam ko ngir xamne ne Serigne Touba la. ndénkaan Serigne Touba nak neena kep kumi àndal deug lay ande yow kunu ma al haqq mahma kallafakum amru amr motax waxam ji ji mu wessu yéen ñëpp ko déggandoo lool rek la wax na ko fatali ci bir fatali gi itam muy digal ñi nga xamne yene chef de village tàmbalee ko ci délégué délégué de quartier yi ne ci suuf ngeen xam ne dëkk bi Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu koy def ab village ci turam da nekk ku fi nekkal Serigne Touba ba nëgg ni itam noonu lay demee yaa koy jël délégué ko nit ngir kon ngeen xam ne bu fekkonte ne mën na faa nekkal boppam moo fay nekkal boppam kon yéen ñi nga xam ne yéen lañ ko dénk rek tàmbalee kon ci délégué délégué de bi nañ xam ne fuñ nekk ñoo fa war a nekk yi sëriñ bi nekk fa ay loxom nekk fa ay tànkam sëriñ Tuubaa ne ko ko nekkal ci barab war ngaa fexe ba mate ko ba ku la gis du la xeeb ciow dara ba xam ne yow mi mate nga jata jataayu sëriñ Tuubaa ca foofa kon ñi dëkkal war nañu gën a sàmmonteeg ndigal yëm fi joxoon ndaw loolu am na lu ma ci sant dinaa ko wax di ko fàttaliwaat nee na na ci ñëpp maase gën a farlu gën cee góorgóorlu képp koo xam ne gis gisati nga fa loo xam nga ne dëppootoo ki ndigalam nga fexe ba saafara ko ca na ko war a saafara bu la ta chef de village ba la yirif nga jàllale ko ci moom ñu xam ne sëriñ bi lañ fi nekkal te ko ku nekkal sëriñ bi ci barabkat war ngaa góorgóorlu ci te taalibe yi ndax loolu la fa bàyyi bu tëwee chef de village ba mën a ba ba jàll ko itam ñu indi ko ci kim teg ci maire bi moo moom la fi sëriñ bi teg muy saytu ni dëkk bi doxee ci wàllu adduna gi kon lu leen ci te rek ngeen yóbbu ko ba ci moom ku ci ne kilifa ga nga dëkkal ci quartier nga xam ne ndawul sëriñ bi la fa loo xam ne bëggati nga ko wala nga xalaat ko na nga dem ba ci moom nga àgge ko bu tay ñoom ñëpp nag danañ ko indi ci man boo agsee ci man itam nag bu fekkee xool naa ba xam ne mën naa ko lijjanti te sëriñ bi du ko yëg fa sansa ba def ko bu dee loo xam ne kàddu sëriñ bi ndax kàddoom la yoru moo ma cee joxaat digal ngir mu gën a gaaw boobaa itam ñu def ko sëriñ bi nee na doxeen woowu yi nga xam ne moom la fekkoon kilifa yu jëkk yi def ko ba mu agsi ci moom loolu la fas yéene aar sàmm ko te teg ci bakkanam moo tax rek mi ngi ñaan ñépp ñu sàmmule ko loolu nga xam ne ndono la di ndénkaanu sëriñ Tuubaa ñëpp sàmmule ko loolu bu ko defee itam jox na ma digal ne ma ñetti weer yu jotate mboolem chef de village ak délégué de quartier yi naay dajeeg ñoom kenn ku ci ne sab quartier lañ nga fa bëgg ak la nga xam ne am na fa ci jafe-jafe nga di ko dajale buñ bokkee toog nga leeral ko lépp ñu xool luñ ci mën a saafar ba ñu dajawaat loolu bokk na ci ndigal yi nga xam ne sëriñ jox na ko danañ ko sàmmoonte kon loolu mooy la jiitu ci ndigal yi